gestion des principes oubliés noonu la ki yor kàddu gouvernement bi titré texam bi nga xam ne si la tontu téeméeri signataire ak ñoonti fukk ak ñaar ñi nga xam ne daal nañuy sàkku ñu bàyyi kii du Ousmane Sonko ak ñi ñuy woowee les détenus politique bu sukkandikoo nag ci Abdou foofa naa ay intellectuel ay ñi seen xel màcc ci wàllum yoon war waruñu woon def lu mel nii ndax naka laaj njiitu réew Macky Sall di ko jaarale ci jiwrinam bi mu dénk lépp lu jëm ci wàllub yoon di sàkku ci parke ba mu bàyyi ab détenu woo xam ne juge d'instruction moo jël ndogal niñ mel loolu ñàkk xam yoon la wala itam wax lu la neex ngir jaxase te mu ngi laaj sax ñoom ana fan la ñu nekkoon ci jamono ji nga xamante ne moom mii ñuy sàkku ñuy bàyyi ko tey mu génn kaso ba woote bi mu doon woote ngir ñu fekk sa Macky Sall sa pale ba daal di koy génnee def ko ni ñu defoon di Samuel Doe wala itam ci jamono ñi nga xamante ne ay ndaw ñu ngi doon jóg dem taal ay institution de la république gouvernement bi di ci xarlu itam tekk tekkaaral gi nga xam ne signataire yi li waxuñu benn yoon ci bus boobu ñu taaloon ba tax sax ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan gannaaw bu ñu sukkandikoo ci moom appel à l'insurrection yi nga xam ne ki ñuy sàqu tey mu génn kaso ba moom moo ko defoon Abdou Karim Fofana di xamle ne signataire yi li li ñu waroon sax muy rafetlu taxawaayu nguur gi nga xamante ne jël nañu ay matuwaay ngir ñu bañ a taal réew mi